sama c'est bon démarré na salaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar bu baax euh, dans quelques minutes ma ma clarifié ma clarifié quoi par rapport ak euh, Ni commencé génn ah, melni ni dañu commencé dañu commencé jëfuru moi je comprends pas quoi c'est-à-dire très sincèrement je comprends pas et j'ai besoin de comprendre très sincèrement j'ai besoin de comprendre motax may may may may def live ni quoi ngeen partager ko au maximum rek euh comme ça nous clarifier tout quoi ci Facebook rek la hein ci Facebook rek la parce que du de sax quoi du gudd du gudd du gudd maa ngi ñep ñëpp quoi.

comme ça ma expliquer bon voilà dama déglu Top déglu Pasteur dans leur ensemble comme je ko waxee sama live léegi li ma Morgan di wax dëgg laa de ça nous fout au pôle nord c'est-à-dire que nous vais dire très sincèrement nous croyons pas à Mola Morgan mais ce qui me pose problème Je affaire Yen ñi gëm Morgan Morgun ci tuuma yi fi tuumal maram Faye Sall tuumaal ko fi Moustapha Diop tuumal ko fi ñep tout le monde yéen yéen bëgg ëbbatiku gëm lo sénégalais ne leen Mollah Morgun dañ ko fay mola morgan dañ ko yónni Mollah Morgun APR la bokk Mollah Morgun Macky Sall la mola Mollah nangam sangam mais Pastef joue à quoi ça dit man je ne comprends pas nan la nit meuna meuna mën berner nit ñi comme ça ça dit que ni yeen durant toute une année mola Morgun yéen koy tag, mola Morgan yéen koy la fois dernière sax bi Také, tàkkee ko ñun né ñun wa ñun ñun Benno Bokk Yaakaar ñun Alliance pour la République ñun ño taal kër Vous Morgun mu génn ay audio ngén top dëkk bi yépp audio Mollah Morgun audio Morgan, audio vous en aviez fait le Coran vous en aviez fait la Bible aujourd'hui Mola Morgan parle une minute xawma lan la wax sax ci Ousmane Sonko parce que bon voilà donc que Sonko a des vidéo que a des photo que a audio c'est son problème moi ak Ousmane Sonko Nous, comme ni ma ko waxee sànq sama posture de départ ci l'a taxaw ba qui ci moom laa gëm que ni man bon j'attends de voir voilà donc maintenant mais pourquoi yin vous sortez j'ai vu Ousmane Tunkara, Babacar Sader, Top toute la racaille sort pour dire que Mola Morgan dañ ko j'ai vu un Twitter c'est nangam sangam voilà parce que tout simplement Gabriel Khan a été au Canada qui s'est rendu Morgan Gabriel Kahn, euh, moi, jox ay audio euh, pour me wax vous retournez pour dire que Gabriel Khan. ñun pas il y a nangam sangam donc qu'est-ce que c'est cest ça dire cest que sénégalais pour dire que ni vous avez devant vous un parti bu subaa nga wax deug ñu xarab la euh, Omar Sall oustaz Omar Sall oustaz Omar Sall il est en train de subir toutes sortes de voilà ñu koy saaga subaa ngone pour ben deug bu mu wax ça dit que yéen au fait vous n'acceptez pas la vérité maintenant liñ bëgg sénégalais yi xam ko moy que vous ngeen wax ni yéen wa passer, ngeen wax ni c'est-à-dire sen parti bi parti lan la au fait dañuy bëgg def li Ousmane Sonko dañu bëgg def lee Ousmane Sonko dañ koy monter ay vidéo dañ koy monter ay audio tànk bu tànk bu toogul dëgg yi neefere tànk bu toogul dëgg ay neefere Mollah Morgun ba muy wax ci Adji Sarr ñun soxaluñ ko kaani Mollah Morgun ba muy wax ci aji Sarr ñun saagawuñ Mollah Morgun ba muy wax ci nàngam sàngam dañ ko déglu xas na fi Marème fay Sall vous l'avez béni xas na fi Moustapha Diop vous l'avez béni vous l'avez béni aujourd'hui Mola Morgan ah. il a juste dit que l'image que gis vois mais autre chose je reste convaincu que ce que Mola Morgan veut faire peut-être c'est légitimer la thèse des rapports sexuels écarter le viol Moi personnellement c'est ma appréhension il veut légitimer les rapports sexuels écarter le viol parce que nee un ci rapport nit affaire humain affaire nit affaire mœurs nous on a dépassé ça on est nous dañ nekk ci stade jigéen bu jiiñ viol Digène bu jiiñ gor viol wax ngeen ne Alpha sénégalais né amul rapport sexuel wax ngeen ni ñum mu tudd sax euh, comment dirais-je Adji Sarr amul rapport wax ngeen ni tout le monde vous avez dit à tout le monde que ni y a pas eu de conjonction sexuelle donc fexe nak nag ci bi bu leen fi déllu ci rapport sexuel mais amoul viol wala am viol mais amoul nagam. c'est-à-dire il faut être conséquent cohérent ñun nag ñun ngi vigilance ñun fañ nekkoon jigewuñ fa ñun li ñuy wax mooy la xew Sweet Beauty viol la que ngeen gëm ko ak ngeen ñàkk ko gëm jusqu'à la preuve du contraire que maintenant Ousmane Sonko crée une ko vidéo moom moo xam parce que bu vous avez bu toogoon këram li ko dal yëpp du dal bu dee ko demoon si ay jabaram di ko dalee du ko dal mais je comprends pas pourquoi parce Pastef tout son maanaam Pastef bi yëpp jóg nañu Mollah Morgun nekkatul patriote du coup Mollah Morgan jaam la du coup automatiquement Mollah Morgun jaam la Mollah Morgun nekkatul patriote ñun nag personnellement ñun ñi nga xam ne duñ po duñ changer suñu position ñu fañ nekkoon ña nga fa nekk rek ñun Mollah Morgun ak Ousmane Tounkara nangam sangam ku ci mën a wax leneen ñun lañ jàpp ñun moom lañ jàpp xam na lañ jàpp ñun que le Sénégal ne ñu pas nii kuñ fi viol da dem procès focus procès c'est-à-dire que nous ngeen nous divertir c'est-à-dire vous n'allez pas réussir à nous divertir combat que combat vous n'allez pas réussir à nous imposer votre si cynique manière de penser on n'est pas dans ça Ousmane Sonko mënu il n'a pas réussi il n'a pas réussi. Babacar top top. rien que le fait que nga taxaw ci plateau le juge a décerné un mandat de dépôt Il moo tax un waxati ci dépôt mais nak fen nak dañ japp né le mensonge est l'essence même du parti passif. wax ko c'est un parti qui est né dans le mensonge c'est un parti qui a grandi dans le mensonge c'est un parti qui va mourir à cause du mensonge c'est-à-dire que ni yeen da ngeen judd ci fen mag ci fen nar dé ci fen parce que lutax ma wax lolu. Moy fen bi jitu wax naa ko Moy ngeen gëmloo Sénégalais yi vous incarnez l'antisystème système. vous ànd ak Khalifa Sall mu ji ànd ak mujj ànd ak Khalifa Sall mujj ànd ak nu mu tudd Aïda Mbodj mujj ànd ak Habib Sy mujj ànd ak Karim Wade mujj ànd ak Jacques vous avez incarné l'anti système pour naître vous avez été avec l'anti système pour grandir pour exister beneen bi mooy c'est-à-dire que ni seen leader moo fi toog ñëpp di ko déglu mu jiñ Mamour Diallo 94 milliards jusqu'à présent jusqu'à la jusqu'à l'extinction du soleil Ousmane Sonko du len gennel le compte qui abrite les les les 46 milliards du leen ko gennel mom mo fi tok tamit djign mam djign mam bay ñaa 29 milliards ñu wax ko ne rapport ci internet la ko lire jusqu'à l'extinction du soleil Ousmane Sonko du len gennel du len monsieur gennel un rapport un quelconque rapport bu bu épinglé mam bay ñaa Ousmane Sonko mo fi tok bu deg beuk di fenn nam dem na fa la may sama yaram ba dem fa maa ko xam 10 minutes la fa def nangam sangam et tout le monde a su que ni 10 minutes mom boko fa defone nga top nga top donc maintenant il faut que ngeen yeew yéen sénégalais yi ngeen xam ci li ngeen di woo lan la c'est-à-dire que li ngeen di woo au fait mooy kaay leen daaw ba ren wala daawaati jéem ba ren maa ngi ni fen kaay leen ngeen dee pour man pour samay fen la nga xëy départ ngeen ci dara amul vidéo amul dara amul dem ngeen ba yéen seen bopp yéen ko waxaat seen bopp ñun fañ nekkoon vidéo yi ñuy wax la ñuy wax ñun ñu ko téye suñu bopp xam nañ fa mu nekk ak nam fa nekkee wallahi azim kon bu ngeen di jéem a nax sénégalais yéenee nax sénégalais yi mais am na vidéo yoo xamante ni moom bu bu génnee c'est pas la peine ngeen di wax dañ ko monter wala monter wuñ ko dana mel ni dynastie ngay tok ni di jakarlo nit ñi góor ñeeg jigéen ñi Dalam def dana mel ni saa neex bu toge nga xamne sa neex nga ni di nga xamni ki mo moy diw dana mel ni saa bu tok dana mel ni baara bu tok garabu garabu dana mel ni yéen ñii toog par ben di ko gis ñii jaxaran di xamne li lii kenn monté wuko ñun ci video yooyu wax video yi ñor bu génné yeen wa pastef wallahi azim di nga gis ku dugg néegam toog mu xaru ñun vidéo yi ñuy wax ñun bu génnee fii Sénégal la tax ma ne leen rëbës wala mbëbës sénégalais dañ xam ni kii nii taxaw nii Ousmane Sonko la ni ngeen koy staanee Kër Massar mu taxaw yoon yor micro bi di gatsa gatsa ni ngeen di staanee Ousmane Sonko muy conférence de presque ngeen di dégg voix am xam ko xàmme ko ràññe ko wallahi azim noonu ngeen di xoolee vidéo bi mu naqari leen lool ngeen gis ni kii ngeen gëmoon yaakaar moom moo nekk nii def naka ki ndaw yi gëm pour dé ak mom mo nek def naka sa non ñun vidéo yi lañuy wax ñu lu mo la Mollah Morgun yor moko xam audio yi mu yor moko xam mais yeen ñi gëmon wax mo la dem ci ay audio yeen taxaw tey ne nek ci patriote yeen taxaw tey ne da fay fan yeen taxaw tey ne la duñ ko jënd donc parti bobu ngeen amal affaire parti bobu ngeen amal affaire mais ñun pour ngeen comprendre vidéo yi ñeen wax ñun yalla ma tim xam ne bu génné fi di ngeen xam ne moom la cest que am du am ñuy des Ça cest c'est-à-dire dañ diw la mo Ousmane comme ni ngeen tok di ko donc loolu la bëggoon taftal ci li nga mom moy live ne dafa melni comme Serigne Bassirou Gueye gis bureau politique gis cadre yi gis ngeen nangam c'est un parti qui fonctionne dans la manipulation dans la manœuvre et, puis tout ça donc mais ñun fiñ togon inshallah taala dañ fa tok euh ma wax len nak aussi ties mom la fa xew mom du terrain 120 mètres sur wax deug yaal 90 sur 100 ties mom la fa xew mom machallah ties tak na lu xam nañ ni euh, meeting la bo xamanteni euh matu sax département ndaysan du meeting national sebe ki diko wër ñu teungeñu diko wër wowuñu casamance bi ñoo nak la ko wër wota wu fi tentement ñom dajalo nañu waja gon leral euh, gudina lol gudina lol il faut que je parce que tout simplement nous concevoir nit nit nous nit nit concevoir nit ñu ñoo ni ku ñu pas ñu daggal ngemb l'essentiel Ousmane Sonko ku baax Ousmane Sonko ki nangam même la ngay wax bu la yow di Ousmane Sonko Ousmane ku baax Ousmane Sonko ku Ousmane Sonko def nangam patriote nga mais wax ni. xam ak suba suba du dégg lu baax da ngeen ko saaga saaga saaga saaga saaga ba ba ba xolul ndeyam ak baayam set mais nag yéen na yéen i neen la parce que nag moom tamit fii la toog jigéen jigéenu Sénégal yëpp tuumaal la leen fi wallaay la asib moo tax ñun dañoo constant nuñ ko ñàkkee woon gëm démb noonu ci position boobu lañ toog wallaay la asib ci position boobu lañ toog te duñ fa bouger duñ fa randu man loolu laa bëgg ngeen comprendre saa à position bi ñu toogoon duñ fa bouger duñ fa ne nañ ñàkkee woon ànd ak moom gëmadi ko ba muy wax ci président Macky Sall nañ ñàkkee woon ànd ak moom gëmadi ko ba wax ci keneen position boobu lañu toog nous sommes cohérents nous sommes logique dans notre démarche yéen nag moom bu waa ji waxee dëgg tey nay wax ne Ousmane Sonko yaaram kallaaw rek yaaram kallaaw rek même bu nekkee di def même bu nekkee dafa sànni ngelaw dina wax yaaram kallaaw mais bu dee dafa sànni ngelaw ngeen ne xeeñ na ñu ne doo yendu ci kër gi loolu mooy li am santaan naa leen bu baax a baax gërëmaat leen bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla def jàmm Sénégal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.